salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien président de la république woo na assemblée nationale député yi alxames ngir ñu ñëw ñu waxtaanee CSE ak euh, au conseil des collectivités territoriales ndax dañ ko bëgg di dissoudre ndax bariwul njariñ te li jël ci xaalis bari na. waaw loolu daal indi na jeexi jaaxa ci député benn bokk yaakaar yi am na am na ñooñ euh, ci politique yi ñoo xam ne parti socialiste AFP ñu nga bëgg a dajale seeni doole ngir bu ne kët ne jonn législatif ñu mën cee am as sax su ñu mën a opposé woo waaw Mbow daal ne Sonko na xam ne menaces yi tiitaluñ fii la ñuy fekk daan xeex ak moom ba cooki fa Bougane Gueye Dany daal ne. histoire wane na ni ci nguur gi dañoo lànk recevoir ay gani Serigne Touba ca King Fat Palace te ñiy défendre góor jigéen yi Mélenchon bi ñuy ñëw Sénégal teg nañ leen ci condition yu baax programme opposition bi bu joyee moom mooy diggante Ousmane Sonko ak président Diomaye tas tasar lay def ndokk yàlla ba ñoom ba ñu ko xamee ñii ne ñetti nit la ñii ne ñeent ñeenti nit ñetti grand ak benn jànq ñoom ñoo fab signature Sonko falsifié ko di ci def ay musiba mbàbba kumba yoon teg na leen loxo juróom-ñaari nit ci mbiri Aziz Dabala defeere nañ leen am nañ ci ñu bari nag ñoo xam ne ci TikTok bi leen di nekk di defi enquête ak yooyu noonu nañ waajal seen bopp ndax ñii moom <laughs> seen bu seeni pexe joyee ñu ci bari danañ danañ dem kasot nekk leen foofu di enquête ndaw yi Sénégal ñu ci ëpp Sinébar mu ngi leen di lor di leen rey ba pare di indi xeeti violence maanaam drogue yeeg volet yeeg ah wañ leen ko wàcc rek musiba la de attention mu ngi lor de a ah, baax na yàlla ñu yàlla may kendal ak jàmm service yi nga moom tàmbali na liggéey ba ndokkale yàlla